aywa xibaaru jaww ji nañ koy defee saa su nekk Oumy Samb lañ ci àndal Oumy ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay euh, Soxna Fati mm. bonjour à la team et bonjour aux téléspectateurs. Mm. qui nous regardent bonjour à la régie. puisque jaaru ma nuyu lay maxtaan. <laughs> mu ne leen Cheikh. Euh, namoon naa la maa leen raw. namoon nañ la lool maa leen raw. taarikàlla. Mm. c'est bon. Aïcha c'est bon on ah, peut y aller c'est parti. Mhm. non non parce que Cheikh Tidiane. Mhm. il veut juste dire ce qui s'est passé mais. c'est clair ñu dem c'est <laughs> parti donc ce matin Fatick fraîcheur bi moom mhm. dañ koy euh, dañ koy dégg rek. fi mu ne nii gisatuñ ko bu baax. Euh, dafa mel ne tàngaay bi mi gën dugg. mooy gën a hmm. en fait c'est tàngaay bi en tel c'est la sensation de du bi la. Hmm. donc au niveau du ressenti ci yaram. Hmm. a encore beaucoup plus bi nga xamante ne. Euh, fan yii yëpp taux bi tollu ci à peu près soixante quinze pour cent en généralité euh, niveau national. donc ce matin. euh, au rendez-vous de la chaleur boo xamante ne tout plus concentré vers le centre-est du pays. Mhm. Euh, ca bët euh, Saloum moom euh, daanaka dal na le temps est calme pas trop de chaleur. Mhm. Euh, ce matin mais ça se réchauffe bu jant bi xasee ba fenk rek vous le savez on va voir ça tout de suite ci après-midi bi. Euh, température bi ak ressenti bi dafay gën a yokk puisque mhm. jant bi mhm. euh, il fait son travail lui aussi au niveau de la température ce matin 22 degrés donc la ñu tàmbalee euh, boori Louga c'est la plus basse température 24 Saint-Louis mhm. également pour Dakar 27 au centre et puis toujours c'est classique hein yéen a ma ko gën a xam ñuy dem ci biir réew mi plus bi di yokk 28 la ñuy xaarandi ca Matam 29 température maximale à Matam les nuages denses donc sont localisés diggante Kédougou Kolda Euh, ainsi que Tambacounda. bu ñu hmm. xoolee rek en général là ça va arriver par le Mali euh, et puis progresser euh, ci ñun ci ci pe euh, so penku réew mi pardon. Mm -hmm. de la pluie également Euh, c'est en observation la partie sud extrême sud-est du pays fi mu toll nii moom la ñuy euh, wéy di topp ñu xool diggu bëccëg bi donc comment ça évolue. Mm. Euh, la chaleur elle est quand même là. puisque les températures si on fait la diggante démb ak tey euh, mu ngi yéeg 44 encore euh, pour Matam 41 Tambacounda Kaffrine au centre et puis euh, Diourbel 40 ko fa am Kaolack 40 degrés euh, 30 ñu am ko ca Dakar 32 pour Saint-Louis 38 waa Ziguinchor en Euh, digg bëccëg bi jant bu fës donc lañ nar a yendoo toujours et puis hmm. quelques perturbations diggante Tambacounda Kolda Kédougou toujours donc en observation hmm. puisque c'est des nuages yoo xamante ne ils sont dits denses mooy cumulonimbus c'est un nuage vous le savez maintenant je fais la répétition euh, nuir boo xamante ne dafa am ndox donc hmm. mooy niiru nawet bi moom la ñuy topp fi mu toll nii dès que vous regardez au niveau du ciel Euh, constitution nuage yi ak seen densité di ngeen mën a nekk euh, comme je vous le dis d'habitude des visionnaires mhm. euh, ci temps bi puisque c'est le nuage qui détermine le le climat mhm. mu ngoog nii lañ nar a yendoo c'est calme mhm. stabilité y a pas de souci pour cette journée donc mi ngi noonu taw bi dafa mel ni on va partir vers une pause pluviométrique maa koy topp daal. incha allah xooli jigéen 13 mm. bi si topp 19h23 lay doon juste un petit peu. Mm. que ñuy julli euh, waxtu timis. Mm-hmm. le jant bi lañ koy jeexalee 6h44 ci la fenk 19h42 on prévoit le coucher du soleil incha allah mbokk yi mm-hmm. euh, bu leen fàtte masque bi di dem ganale yi. Mm-hmm. puisque Covid bi dafa dugg si waat ñu bàyyi xel ci loolu bu baax. concernant la mer puisque géej na euh, fi mu toll nii tout le monde part en vacances à la plage gis naa plage Ngor bi ça recommence là euh, ngeen bàyyi xel noyade bi ça va recommencer malheureusement. dinaa leen wax ci ñaareelu pàcc bi. Euh, comment nu ñuy localiser partie boo xamante ne bàyyi nii donc. géej bi mën na la xëcc yóbbu la courant bi noo koy localiser visuellement juste au niveau des vagues Euh, ci ñaareelu pàcc bi ma ma expliquer leen ko très très rapidement euh, c'est une euh, astuce de de Riyad qu'on qu'on salue mm. au passage parce que ci météo bi la bokk moom tamit mm. daf koy ah, gëstu donc on on partage l'information mm. à tout le monde puisqu'elle sera utile mu ngi noonu jërë ngeen jëf mbokk yi ba ci kanam tuuti ñu tënk ci ñaareelu pàcc bi à tout à l'heure